jërë ngeen jëf di leen dalal si xibaar yi Gambian Talents TV ñu ñëwal leen si xibaar yi lembe réew mi ànd si ak Fatou Badji si altine bi paase foofu sa néegu député yi ñoom nag tere nañ luwaa buy jongal jigéen yi njiiti réew dëkk boobu ñu naan Gaana di uyo si turi Nana Akufo ñëwoon na fii nga xamante ne mooy Banjul si ay yeneen iteem ñii di waaw waak demoon nañ foofu ci dëkk boobu ñu naan Kër Biram fële ca Ouakchott ci North Bank Region fii si Gambia bi jërë ngeen jëf lii moo doonoon boppi xibaar yi boo leen taaxeeloo ñu ñëwal leen ci faram-fàccee yi. Gambia seen mi. ci altine bi passé ñu ngi doon xëccoo ci wàllum luwaa bii di jongal jigéen luwaa bi nag nekk na luwaab bi fi nekkoon depuis atum 2015 kii di Almami Jiiba di député Foni Kansala sànni woon na ci ay kàddu Fatima Malen Mendy moo leen andil yaatali xibaar yi fukki fan ak ñett ci weeru julaay foofu ca pencum ndaw réew ma ñii di defarkati luwaay a toogal askan nga foofu ca pencum ndaw réew ma ñoom nag d'accord nañ ci luwaa bi nga xamoon ni tëddal nañ ko ci atum 2015 ci wàllum jongal jigéen gannaaw bi ko Yahya Jammeh tëralee luwaa bi nag firndeel nañ ko te taxawal ko ñoom sa wax nañ ne ki yaaxa luwaa bi dina tëdd ñetti ati kaso te di nga fay lu tolloo ci juróom fukki junniy dalasis gannaaw bi nga xamante ne taxawal nañ luwaa yi ñii di député yi ñu ngi wax ne ñu jàll ci leneen ndig jot naa isi xaajaatle ci diggante ñu ni neen Mrs Doucouré moom nag tagg na député yiy defar luwaa si luwaa bi ñu taxawal si mbiru jongal jigéen. moom nag mu ngi wootu nguur gi ñu teg loxo képp ki nga xamante ne jàpp nañ ko muy xite luwaa bi moom nag mu ngi oote jàmm ak bennoo jot naa ñaax nguur gi ñu teg képp ki xite luwaa bi moom sa wax na ne dina continuer di yee askan bi pour ñu nangu luwaa bi kii di almaami jiba ki taxawal foo ñi kanta la ca pencum ndawi réew ma moom nag àndut ci luwaa bi ñu taxawal ci wàllum jongal jigéen waat na wéyandi pour xeex bi nga xam ne luwaa biy daal bu nekk luwaa bi nga xam ne taxaw na Fatima Malen Mendy xibaaru GTTV. ci arjuma bi paase njiiti réew mi kii di président Adama Barrow dalal na njiiti réew yi Ghana kii di Nana Akufo-Addo Mr Akufo ñëw na seet si ñu boole ci kontante ak mbégte bu rëy te ñi nga xam ne ay doomi Ghanien lañ ñi nga xam ne ñu ngi fii si réewi Gambia dalaloon nañ ko foofu ca Banjul International Airport di wone seen aada ak seen cosaan buñ pare foofu nag jàll nañ fale ca Banjul pour dem fekki mbokki Ghanienam yi kii di Fune Jallow dinañu yaatal xibaar yi. gannaaw bu ndaje boobu paasee nag ñi nga xamante ne ñooy doomi Gambien yi ak Ghanien yi ñoo ñu nekkoon ca airport bi. ki nga xamante ne mooy président Adama Barrow ak ku takk ci moom di Ghanaian président bi ku fu ado jëmale foofu nga xamante ne mooy State House. Akufo-Addo moom nag jéem naa dem foofu nga xamante ne mooy baara mu daal di daje ak economic contingent nekk foofu sa baara. njiiti réewi Ghana moom nag ci waxtaanam ak taskati xibaar yi wax na ne economic contingent ya nekk foofu sa baara wax nañ ne ñu ngi kontaan pour saaf Gambia. njiiti réewi Gambia di Adama Barrow wane na kontaanteem ak mbégteem gannaaw bi nga xamante ne yóbbu woon neen ñaar fukk ak ñetti Gambien ñu demoon jàngi ji engineering gannaaw bi ñu amee scholarship ñu ñëwee li nga xamante ne mooy performance yu baax a baax. diggante Gambia ak gaana nag doon na diggante bu ratax ci wàllum jàng ak kaaraange fu ne jaalu xibaaru GTTV. Washington West African Center ñu daal leen xamee ci WOWAC si altine bii paase daal di nañ ay yére ay bagages yi jàng lu ci mel ni ay kawaas ay lekk fële ca kër Birame. ci lond bi fukki fan ak ñeent ci weeru julaay 2024 ñii di waa West African Centre ñoom nag tukki woon nañ dem foofu ca kër biram ca Upper bu district North Bank Region ci réewum Gambia seen dem bi foofu nag li ko waral mooy dañ demoon pour jox leen ay bagages yi nga xamante ne dinañ ko mën a jëfandikoo. bagages yi nag bokk na si si lekk ak yi nga xamante ne ñooy wàllum bagages yi school ak ay kawaas ak ay yére ak bagages yu bare bare yi nga xamante ne dinañ ko mën a jëfandikoo si kër yi bagages yi nag ñi nga xamante ne ñooy waa Kër Biram ñoom nag jël nañ ko si kontante ak mbégte di wax ne li nak nek na li nga xamantene ne lu bax la te dina len dimbalé bu baax a baax gannaaw bi nga xamantene nak jël nañ bagage yi ñom nak ñu ngi gëram ki nga xamantene moy Pa Ousmane Diouf ak wa di wax ne rek nak képp ki nga xamantene rek yaangi joggé ko bor bobu nga def ni Pa Ousmane Diouf def nga ñëwaat waat ci sa dëkka nga jappalé len bu baax baax dina am solo Kiri di Omar Seka nekk alkaali bi foofu ca Kër Biram moom nag ekkati na kàddu ngir mànde di gërëm ñi nga xamante ne ñooy waa wawaak si jëf ju baax ji nga xamante ne def nañ ko pour jàppale leen waaye nag moom dolli na ci kàddoom di wax ne ñoom nag soxla nañ ñu dimbale leen ci wàllum booxool ak ay yoon ak jigéen ñi ci seen garden yi imaami dëkk bi di Yusufa Seka moom tamit wax na ci ndaje moomu moom nag kàddoom bi mu ko ëkkatee moom li mu njëkk a def mooy gërëm ki nga xamante ne mooy Pa Ousmane Diouf ak ay waajuram waaye nag rawatina waa wawaag ci jëf ju rafet ji nga xamante ne ñoom def nañ ko foofu ca Kër Biram waaye nag ba tey rek ñoom ñu ngi dolli di wax seen soxla yi nga xamante ne soxla nañ ko foofu ca dëkk ba di wax na rek nag soxla nañ ñu jàppale leen ci wàllum mbéy mi ak wàllum jigéen yi nekk ci garden bi faamara YFM Jallow nekk tica bu mag foofu ca Kër Biram Lower Basic School moom nag tatagal na waa wawaak di leen jaajëfal ci bagage yi nga xamante ne indi nañ ko fa foofu ca Kër Biram waaye rawatina nag bagage yuñ leen jox ci wàllum jàngami muy wax ne rek lii nekk na li nga xamante ne dina jàppale foofu ca école bi bu baax a baax a baax ak xale yi fay jàngee ñii nag bokk na si ñu baree bari ñi nga xamante ne wax nañ foofu leen sa ndaje muñ doon joxee bagaas yooyu rawatina nag ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi ak ndaw ñi ak góor ñi. waa West African Centre ñoom nag ki nga xamante ne moo leen nekkal fii ci réew mi nekk Modou jóob moom nag ekkati na kàddoom di wax ne yii nag bokk na ci benn si ndimbal yi nga xamante ne waa Wawac ñu ngi koy def. parce que Kër Biram nekkul seen jël benn dëkk bi nga xamante ne wa wawaak indi nañ fa ndimbal waaye nag ak yeneeni dëkka ndaxte yàgg nañ di dimbale réew mi juróom ñaari at yi nga xamante ne paase na ñii di waa ñoom nag dimbale nañ réewum Gambia dëkk yu baree bari ci wàllum bagaa ci mel demee ni ki ay yire ak ay kurang si ay school ak ay lekka pour ñu mun a jàppale seeni njaboot fii ci réewum Gambia ñoom nag dem nañ si dëkk yu baree bari bu yàggul rek ñaari weer ci gannaaw rek ñu ngi demoon fi nga xamante ne mooy Bakary ya ñoom nag joxe nañ fa bagaas yi ni mel ñoom it amoon nañ mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax a baax lii nag nekk mbégte ak kontaante waa dëkk ba tamit kontaan si gërëm leen bu baax a baax a baax ci jàppale bi nga xamante ne jàppale nañ leen ko Ramatulaay Guèye xibaar yi GTTV jërë ngeen jëf lii moo doonoon xibaar yi lembi réew mi laataa ñuy dem ñu indilaat leen boppi xibaar yi. si altine bii passé foofu ca néegu député yi ñoom nag tere nañ luwaa buy jongal jigéen yi njiiti réew dëkk boobu ñu naan gaana di uyoo si turi Nana Akufo ñëwoon na fii nga xamante ne mooy Banjul si ay yeneen iteem. ñii di waawu demoon nañ foofu ci dëkk boobu ñu naan Kër Biram fële ca Opobo Debo ci North Bank Region fii si Gambia bi. jërë ngeen jëf ci seen déglu ak seetaan bu rafet ba beneen xibaar.